Donc nous regrettons tout ce qui se passe. Nous regrettons aujourd'hui encore plus que jamais qu'on euh, puisse euh, disons, arrêter une personne qui n'a absolument qui avait juste sollicité euh, de, pouvoir passer, aller à Bakel. Et que les, les, les, derniers qui ont été, euh, les vivres qui ont été achetés, waaw kaay wax ñu rek gis nga rek xaaral ñu xaar léegi comme comme ñoom Abdou moom ni ñu ko defee rek benn déclaration bu taw d' accord d' accord d' accord ñu ngi si jàmm waaw waaw voyage bi méttiwul benn point rek benn point rek. wala ñu leen foofu kon point bi. mais doo xaar ci pare ñu mais man maay Thierno Thierno mooy man. demal demal foofu demal foofu. waaw waaw waaw.

yi nga xam ñoo ngi suivre aujourd'hui depuis Tamba ni ñu ko defee keroog Bakel jóge Bakel ñëw Tamba euh, noonu lañ dellu siwaate Tamba tey pour espérer que la justice euh, soit dite que le droit soit dit et que jàpp nañ ne loolu bu ñu ko defee tey Bougane Gueye Dany dafa war a génn defi campagne électorale donc nu tey li ñuy xaar mooy un procureur de la République et des juges libres xaaruñu un procureur boo xamante ni dafay nekk d'un parti wala nekk à la solde d'un pouvoir te tey jii lépp kilifa diine yeeg ñëpp wax nañ ko ak euh, les forces vives yëpp wax nañ ko Bougane Gueye Dany fan yi mu def ni ëpp na mm-hmm. te du dëgg du yoon donc li ñuy xaar tey mooy que la justice soit dite te ñoo ngi xaar euh, que balance bi balancé véritablement tey mm-hmm. pour ñu bàyyi Bougane mu dellu ci waa këram mm-hmm. euh, parce que li ñu ko jàppee ni ay ay ay ay caaxaan la Euh, amul benn sens et que sénégalais yi nga xamante ni yëpp justice ñor na leen dëgg ñor na leen xam nañ ne Bougane deful dara fi nga xamante ni foofu lañ ko téye Tamba jubluwuñ ci lu dul humilier ko ak toroxal ko te loolu jàppoon nañ ne 24 mars 2024 lay yem mais c'est triste de constater que les vieux démons ñoo ngi ressurgir di génnaat les faucons tamit tey am na ñoo xamante ni moom nee nañ warul génn tey warul génn maa ngi gis sax sànq bi ngeen di direct am na commentaire yu ma lire ñu ne waaw yéen journalistes yi xanaa amu leen programme mais lii dara ëpp ko programme dara gënu ko doon programme nous voulons un état de droit nous voulons une démocratie nous voulons une démocratie où s'exercent les libertés fondamentales mais loolu bu fekkee ne bëgg nañ ko nit jóg di dox soxlaam liberté d'aller et de venir ñu ne doo ko fi dox mais c'est pas possible c'est inadmissible donc vraiment li ñuy ñaan ñun mooy jàmm li ñu bëgg mooy sérénité li ñu bëgg mooy calme li ñu bëgg mooy ak dal mais jàpp nañ ne wax dëgg yàlla dinañu bàyyi Bougane mu dellu këram ñu continuer campagne bi période campagne électorale ak élection c' est une fête de la démocratie et noonu la ñu a concevoir wa li fi xew keroog ngeen gis à Dakar incident yi xew noonu c' est malheureux euh, c' criminel parce que ñëw fekk siège yu jàmbur nga taal ko kenn mënul comprendre lan la donc la violence n'a pas sa place en politique la violence n'a pas sa place dans une démocratie la démocratie la politique a été inventée pour lutter contre la violence donc mënoo que la politique a été inventée pour lutter contre toutes les formes de violence dans l'espace public mm-hmm. donc mënuñoo am politique mënuñoo créer politique ba pare pour policier l'espace public ba pare di am violence ça n'a pas de sens mm-hmm. donc violence dafay yem fële ci jungle bi mm-hmm. mala sax ña ngay trouver seen i consensus waxuma laa nag doomu aadama yi donc il faut qu'on fasse preuve de grandeur fasse preuve de dépassement il faut qu'on fasse preuve de euh, d'humilité bàyyi provocation yi ci politique parce que amul njëriñ le 17 novembre yàggatul sénégalais xam nañ xamme nañ xam nañ ñi nga xamante nañ ne lii dootuñu ko gisati ndax doole effort yi ñuy def tey Bougane Gueye Dany c'est un c'est quelqu'un du secteur privé tey jii sénégalais yi mobilisé pour ñëw fii tey Tamba mais ñu ci bëri tey jii seen liggéey dafay kii xoolal bi nekkoon ci périmètre bi yëpp tey. Mhm. périmètre bi yëpp commerce bi fi nekkoon tey day tëj. Mhm. lool kan moo leen koy fay. Mhm. est-ce que état moo leen koy fay. du leen ko fay. donc ce manque à gagner borom kër yi nga xamante ni ñoo nekk dans ce périmètre yëpp. ñoom dañuy xëy ñu kees. amuñu kees amuñu fonds politique primature ñu fonds politique présidence de la république ñoom li ñu am mooy xëy ci seen boutique ñu jox leen xaalis ñu ñu ñu wut wut lu ñu lew lu ñu mm-hmm. mën a dundee dem jox ko seen njaboot. Mm-hmm. donc vraiment il faut qu'on passe à qui sont déjà très fatigués. Mm-hmm. loolu amoon lu may wax di ñaan aussi et je suis très confiant. que incha dinañ bàyyi Bougane ñu ànd tranquillement poursuivre sunu bàyyi ko dem reposer ñaari fan. su ñu poursuivre sunu campagne électorale. waaw ah, gis nañ ne aussi la police a toutes les dispositions nécessaires ñu koy féliciter la police a vraiment provocation yooyu bañ a am. Mhm. Euh, gis nañ sax euh, voilà yoo xamante ni amul solo. comme yan euh, mooy comme ñoo xamante ni par exemple bokk mouvance présidentielle jógee Dakar ñëw ba Tamba. ne da nga bëgg a def ay contre manifestation te manifestation amul. Mhm. buggante ay mbokk ma ñëw ay xaritam a ñëw ñu mu àndal di liggéey ñoom ñoo ñëw. Mhm. pour assister ko. waaw on ne peut se réjouir du malheur des autres. on ne peut donc vraiment loolu. loolu loolu daal la ñu bëgg a def euh, mooy euh, mooy taxawu temm ngir dimbali euh, Sénégal pour mu jóge fii mu nekk ba campagne bi na même pas deux jours mais absence de Bougane est-ce que lu nekk loo xam ne benn. waaw ah, ah, Bougane Bougane nag absence am moom absence bu am solo la bu ñu mu ñëw ci suñu campagne. Hmm. ndax ku am solo la xam ngeen ko moom mooy borom tibb tànk donc du may gars yi dara loolu moo tax gars yi ne ko doo fi tibbi tànk daal di koy téye c'est tout amul leneen boo waxee seize heures moo wax dix-sept loolu moo tax gars yi ne ko duñ duñ la ko may te gisoon nañ jeexital bi mu commencé woon am sénégalais yi di ko bàyyi xel. di ko déglu euh, mu am capacité de déploiement macha allah donc euh, mais incha allah il reviendra beaucoup plus en forme. beaucoup plus déterminé. et on va poursuivre ce combat très noble pour la démocratie. mais surtout pour l'épanouissement des populations. waaw mais mais jàmbaar la. il a un mental très fort. il a un mental très fort moo lay remonter le moral sax boo jokkoo ak moom donc euh, li ñuy xalaat kay mooy ñi ko téye euh, ñoom xëy na nekkuñu ci place su bàyyi bàyyi xel xel doomam yi nga xamante ni tey fukki fan a ngi nii gisuñu te kaso Tamba du kaso Rëbës Rëbës boo dawee quelques kilomètres nga egg fa waaye Tamba dafa sori pour seet si fi nit c'est difficile voilà donc euh, ñoom fi ñu jaar ba agsi fii ñu agsi tey waruñu woon a xalaat jaarale fa keneen voilà donc daal mais surtout maa ngi leen di remercier la presse qui s'est beaucoup mobilisée vraiment pour ñëw euh, retransmettre li nga xamante ni moom moo fi xew ma gis ni ngeen ko doon defee démb mm-hmm. noonu ngeen koy defee tey mm-hmm. donc euh, pilier bu essentiel ngeen ci démocratie maa ngi leen di féliciter bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal tamit ci seen taxawaay je suis fier de le dire parce que ci yéen la bokk merci beaucoup merci beaucoup